kon su ko defee dañuy jàll ci réewu itali itali itali tamit euh, xam naa ni mu ak ni mu bëree ay ay ay murit ñoom it war mat nañoo gën a soññ ndax dafay mel ne benn parti rek ci itali ñoo yor liggéey bi foofu euh, man nañ cee ràññee sëñ Daaru ture sëñ Ibrahima Ndiaye xasida ña ngay soññee liggéey bi waaye jàpp naa ne ci seen tur lañ koy soññee soññee donte Milan lañ nekk ak Milan la fa nekk ci ci ay murit mën nañ cee ràññee toskaana wax dëgg yàlla ñoom suñu Ibrahima Sëy ñii nekk fa jëwrin yi ànd nañ ci ak ñoom ànd nañ ci ak ñoom bu baax a baax fu mel ne Cagliari tamit suñ Saaliwu dafa dafa dafa toxu jamono yi Allemagne waaye moom it daana ci jëf fu mel ne Emilia Romagna Marc ak Brosso gis ngeen ne 71 sacs suukar indi nañ ko ci koor gi jàll njiital sëriñ Cheikhouna Mbacke sëriñ Daam Lay euh, euh, ñooñu it ay jàmbaar lañ xëy na mën nañ cee ràññee tamit Pontevico Brescia ndax sëriñ Xaadim Mbay euh, ak sëriñ Fàllu Mbacke imaam gis ngeen kopp yi nga xam ne dañ koy séddale ci koor gi ren ji indi nañ ci téeméeri junni kopp ak ñaar fukk te at mu jot ñu def ko kon Veneto noonu gis ngeen lim naa léegi ñaar fukki junni muy fédération Veneto kon su ma waxee lii nii xam nga tuuti na lool ak par rapport ak itali nga xam ne daanaka Lombardia bi rek ba fu xoolee la fa nekk ci ay taalibe daanaka mën naa ëpp taalibe yi nekk Espagne kon loolu am na am na différence bu sore sore Euh, ni ma ko waxee léegi maanaam Italie li mu rëy rëy wax dëgg yàlla benn parti ñooy jëf ci liggéey bi ndax jàpp naa ne addiya ji di addiya màggal gi wax naa ko léegi euh, ay sept cent et quelques mille la te ci ñetti gox la jóge muy lenn li Milan la ak yenn dëkk yi Toscana muy Pisa ak yu demee noonu yi ca des seeni jëfi bopp lañuy jëf muy Pontevico ak euh, Emilia Romagna Marche ak Brusque kon sëñ Ibrahima Sëy jàpp naa ne loolu yow da nga ko gën a mën a leeral suñu suñu la joxee eh, ci taxawaay yi nga xam ne yéen a koy def bagages yi nga xam ne mooy garab yooyu nga xam ne sëñ Ibrahima eh, Dieng lijjanti woon na ko ñoom tamit wax dëgg yàlla li ko transport li ko transporté mu ñëw soo ci génnee benn partie bi nga xam ne ñoom sëñ Assane ñii ñoo ci participé ci dëkkam li ci des lépp diggante Milan la ak Pisa. ñoo ko ñoo ko paasal mu ñëw amul beneen dëkk boo xam ne participer nga ci loolu lépp ay taxawaay la yoo xam ne dafa matal leeral ngir tamit waa Italie xam ko xam ne liggéey bi yaatu na tàllal nañ ci loxo ñëpp kon si Ibrahima bisimilah. siyaare mbokki taalibe yi mbokki julli yi mbokki taalibe ndongo li Ibrahima Seye la moo yëkkati kàddu gi te di jégalu xam naa ka kàddu yi moom dama koy daa mënul ñàkk rek waaye maa ngi koy jégalu bu baax a baax di sant yàlla bu baax a baax nag ci jataay bi. di jëtal ci ñaan ci ñaan gi ak siyaar gi suñu wasila Cheikh Mountakha Mbacké di ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal suñ affaire itam suñ borom dolli ko kàttan boo mu yàggee taxawee lii am nañ ci am mbégte bu baax a baax a baax man nag samay kàddu moom kàddu soññi la rek maa ngi sant yàlla bu baax a baax di sant waa daayira Moukhaddamatoul Khidma Touba Italie ci jëwrin yi sëriñ Ibrahima Ndiaye xasida sëriñ Daaru Touré ak jëwriñ yëpp koo xam ne nekk na Itali rek maa ngi yëg sama kàddu di la ko mu mu àgg si di xeebu lool di yëg di lool kàddu yi nag kàddu yi dafa mënul ñàkk nag waaye muy doon kàddu yi rek di sant yàlla bu baax a baax ci teewaay bi di wax ne que moom war nañu gën a takkuwaat ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci jumaa ji ndax dañu am lu jumaa ji te sëñ Blad sama kàddu moom ci yow laa ko jëmalee mooy que communication bi nga xamante ni tey ñun moo ñu mën a jàppale fi ñu nekk mooy Italie ndax yow ñëw nga fa ren bon am na lu ñu bari yu ñu waxtaanee loo xamante ni tey dama démarche bi nga ci def moo am na lu mu lu mu wane te démarche boobu am naa yaakaar ne bu continuer rek li ñu bëgg nañ ko am ndax jafe-jafe bi ñu am itali mooy ci jëwriñu daayira yi ñun jafe-jafe bi mooy suñu problème ndax communication bi dafay des te daayira mu xat ma xam na ñun ñoo ko représenté foofu te sëñ Ablaat mi xam na dañuy dem ci ndaje wala xew-xew lu mën di doon la war a demee du ñu demee te loolu mooy gàllankoor liggéey bi moo tax daal ma doon sàkku comme démarche bi sëñ Blaat def ren bi mu fa ñewee démarche bu am solo la ndax gannaaw yàlla garab yi ñu sàkku tey bi ñu ko boolee booleeg a Dieng bu ñu defee démarche boobu lan jot ci loolu te ñi ngi am yaakaar itam yeneen démarche yu gën a kawe yooyu kon may ñaan rek ci yéen jëwriñu daayira bi ngeen jàppale ñu ci loolu nga xamante ni communication bi dina gën a jàll ci jëwriñu daayira bi ndax tam ginnaaw ñoom ñoo nekk di kilifa na loo xam ne bu ñu ko bëggee ci ñoom rek lañ ñoom waaw loolu daal moo doon kàddu gi di sant yàlla bu baax nag di wax ne que di gën a soññ sama bopp di soññ waa Italie yëpp leen xam ne liggéey bi moom lii la képp koo xamante ni tey euh, am nga jëwrin fa nga nekk euh, jëwrin nga fa nga nekk nañu gën a soññee ci liggéeyu jumaa ji ak lu man di doon rek ñu bañ ci des ginnaaw ndaxte wax dëgg yàlla comme ni ko laa Blaat waxee loolu Italie rëy na lool rëy na lool taalibe itam bari nañ fa lool masala te Sëriñ Tuubaa nga leen di wërsëgalee xéewal kon war nañoo geestu jumaa ji bu baax a baax a baax a baax waaw di jégalu kàddu yi bu baax a baax di sant yàlla itam sëñ Fallou mi maa ngi koy ziar jëwrin la macha allah liggéeyu garab yooyu noonu bi mu ci jotee moom itam àddeem ñëw na te loolu itam pas-pas mënul passé loolu di ñaan yàlla rek suñ borom jàppale ñu ba lépp lu ñuy yéene ak lu ñu bëgg si jumaa ji suñu borom mottali ko maa ngi jégalu kàddu yu baax a baax di jox euh, sëñ Fallou mu àggale kàddu gi. ñoo ngi leen di ziar di leen nuyu nuyub jullit ak nuyub taalibe di ñaanal suñu kilifa gu tedd gi mu sëñ Modou Mountakha di ñaan sëñ Afia moom itam di wax ne mbir mi moom kenn ku ne yaa ko gisal sa bopp ma bu ma ko seetee ba seet ko jàngat ko ba jàngat ko maanaam ñi nga xamante ni bi ne ñoo féete ci jumaa ji kenn ku ci ne dañ laa waroon a fay fay ci boppam fay waxuma la ay añde waaye bis bu yàlla saak kenn ku fi ne waroon laa fay waaw bu loolu jàllee nag maa ngi soññ soma bopp di soññ mbooleem koo xamante ni bi ne nekk naa ak yow ci Touba Alessandria ak diggante asti li wax ne li ngeen ma joxoon fii ci àddiya yegsi na indi nañ ko li ci topp muy leetar yoo xamante ni bii ne moom nu ñuy bindal danaa ko indi bu soobee yàlla ba ci seen loxo liñ joxe woon ci garab yi lu toll ci deux cent euros sëriñ baa ngi nii sëñ Ibrahima jot na ci ba jébbale nañ ko waaye di wax comme ni ko sëñ Ibrahima waxee rek bi ma déggee liñ présenté fii ci Italie sama yaram sax dafa daw yàlla xam na ko ndax Italie ni mu toll ku ne Italie yàgg fa buñ présenté Italie ci jumaay jumaay sëriñ Tuubaa ji rek. lu néew fa jóge rek kon am na lu manqué kon nag li manqué da nga ko war a xool xool ko ba mu xam li mu doon ñi bokk ko waxtaanee ko ba ko ci war a jot jot ci ñu ngi tax ñu gën a yokk suñu loxo ndax ñu gën góor góorgóorlu ndax euh, jumaay Sëñ Tuubaa ji moom day loo xamante ne bii ne ñi fi nekk ñëpp di liggéey bis bu yàlla sàkk wala weer wu ne dana war a am salaire maanaam li mooy li nga xamante ne bii noonu la war a ndax ñoom ñi fi ne ñun lañ fi nekkal ñun ñi ñun ñi ne ci àll ñoom lañ fi nekkal. bu ñoom bu ñu loxasuwaay woon génn kon jumaa ji kon kenn du fi ne sëñ Muntaxa dana bëgg ku ko baleel wala bëgg ku ko euh, taalal làmp te du ko am kon ñoom bu ñu fi desee rek ñun lépp lu war ci jumaa ji pour ñoom seen nekkin euh, jàppandi ak seenum liggéey jàppandi war nañ caa taxaw guddi ak bëccëg ñoo ngi leen di tubal kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu